leen ak jàmm mbokki internet yi safo di seetaan Buzz M TV vidéo tay bi suba le 20 xam ngeen ne si la conseil constitutionnel di génne list definitif bi nga xam ne nag mooy candidat yi bokk ci élection présidentielle 2024 lu ni melni nag dinañ ci àddu ak ay révélation yu ama ama moom solo dinañ leen ko dégtal léegi-léegi ci kanam recours bi nga xam ne nag euh, avocat yi président Ousmane Sonko yi defoon nañ ko ki nga xam ne moo di maître Ciré Clédor Ly kon nag suba la 20 lépp dina leer man nañ ne suba daal la ñëpp di xam que ne kii di président Ousmane Sonko dina bokk ci élection yi am du si bokk mu war a leer suba incha allah le 20 ci samedi bi.

élection yi ñu muy élection 2025 et 2024 depuis 2019 nous ci sommes lañ doon dox pour préparer élection yi ñu génn pas benn baat bu ñuy wax focus focus 2024 maanaam suñuy yitte suñuy gis-gis lépp ñu teg ko ci deux mille vingt quatre ñu ne noonu nan lañ koy liggéeyee buñ ci bëggee am ndam mais dañuy massifier sensibiliser nit ñi waxtaan ak nit ñi dugg ci askan bi waxtaan ak ñoom tegal leen benn projet lii nañu bëggee Sénégal dox wax leen loo tax Sénégal doxul ñun ñëpp xam nañ ko mooy système bi nga xam ni moom lañ ci teg ba ñu faagaagalee dem si yàlla si Mamadou Dia si la système bi judd système boobu di dox ba nëgëni si di ñu faat nag système boobu di ñu teree faju di ñu teree am avenir di ñu teree dund dund gu sell di tere suñuy doom di jël gaal di tere suñuy mag ñi bu ñu feebaree du ñu mën a faju faju bi ci war mu nekk lu tiis lu doy te ñi ko samp ay sénégalais lañu comme yow ngeen bokk diine bokk tarixa di dajante ci jàkka ji di dajante ci ngénte yi bu dëj amee nga gis ko waaye mu jël sa alal ji nga xam ni ressource naturel la yàlla moo ñu ko jox ñun ñëpp dëxañ ko ci biir suuf si wala ci jéeri ji wala ci ndox mi ne yéen Sénégal yi yéen a moom lii yi lii yéen laa ko jagleel génnee leen ko dund dund su sell comme na yalla baxé wa arabie saoudite na len maa leen wàccee pétrole génnee len ko dund dund gu sel mu ñi ay gantax ñi malen leen ay fer ñi malen leen li lii ak li ak li pour mën see dund yéen ñep ngeen dund ci dund gu sel lolu motax yalla wacce ressource naturelle nak mu am ñu ko bir bir Sénégal yag lool 60 ans ñu di tibb si li gën a baax si nag bi di dugal seen biir kër ak seeni njaboot ñun ñi nga xam ne ñoo si ëpp si population bi ñu bàyyi ñu ci ndóol si ndóol gu métti mu am benn fossé entre pauvres ak riche yi réew moo dem ñëpp mënuñoo riche réew moo dem ñëpp mënuñoo ndóol France gi ma nekk am na ñu fi riche am na ñu fi ndóol tuuti Arabie Saoudite pareil waaye yàlla dafa ne séddoole leen ko ba mu mët sëkk ba nga xam ne yow mi nga xam ne yor nga alal te alal ji yaa ko liggéeyal sa bopp amul problème lislaam am nga droit yor alal l'islam terewul la nga nekk riche te da koy liggéeyal sa bopp ñaqal sa bopp boo ko gañee ba pare nag am na lu la si yàlla sant. fii nag ay ressources naturelles la ñun ñëpp ñoo ci war a yem nan lañ ci yemee mooy hôpitaux yu baax ñëpp ñu fay fajo école yu baax tali yu baax ay usine loolu mooy ressource naturel njariñam loolu kese la réew moo dem nga fekk hôpital yu baax ñun ñoom ñi nga xam ne ñooy sàcc suñu alal ñoom fii la ñuy ñëw di fajo te bu ñu ñëwee fii di faju hôpitaux yi wala clinique yi nga xam ne man fa laay fajo ñoom foofu la ñuy fajoo parce que hôpital Salpêtrière la ñuy dem à Paris bu dee Marseille ñu dem hôpital La Timone bu dee yeneen hôpitaux yi nekk si grande ville ñoom tamit fa la ñuy dem bu dee clinique yi aussi ñun lay si clinique yi la ñuy dem kon nga xam ni ñoom li ñu nekkee ñoo ko tey loolu nag le 25 février la war a jeex mu am lu ñu kuñ ne conseil constitutionnel yow yaay tànn nag ñi war a bokk te nag danga koy teg ci droit. doo ko teg ci njuñ njaaj doo ko teg si parparloo da koy tek ci droit ci yoon parce que da nga jang yoon conseil constitutionnel mu am nak ay nit ñu bon yu yes ay jaar Badio kamara et consort nek conseil constitutionnel fasiyene def nak li len neex fasiyene def li neex système bi parce que ñom ñi ngi ci biir système bi fasiyene def nak li neex Macky Sall musuma gis parti bu boné ni APR musuma gis coalition bu bonee soxor iñan comme benno bokk bakar benno bokk yaakaar musuma ko gis ci aduna nit ñu yes ñu soxor musuma ko gis ci la première fois ma gis ay nit di dem élection yow candidat bi nga xamni yow la yow la yow la président bi tan pour nga remplacer ko ngay def recours te teguloo ko fenn ci recours moy lu nek lu ridicule foto la bokk bokk ak moom ak ay yo xam yow wóor na ni li ngay def dañ la ko xelal te conseil constitutionnel mo la ko xelal buñu defulé attention nak tay Sénégal dina football ak Cameroun Yalla yalla, mee ñu ndam suñu may bu buñu nekkee suñuy télé di seetaan inshallah allah rabbi Sénégal day gagner di jubilé ñom ci lañuy ñuy seen liste daw làqatu ji lool dañ ko bàyyi xel lu match neex neex neex lu coupe d'Afrique neex fay jexi ji toujours mo wax ko. Coupe d'Afrique bi dina jeexi ji bàyyi la say problème bayi lak ak say souci sóor ko parce que conseil constitutionnel fa nek attañ nañ la bayi ba ngay sétane football ñu publier sen liste tok japp sen jàmm donc da nga saan match ba paré rek fekk ñom publier nañ seen liste kon il faut qu'on soit vigilant mais très vigilant dañu waxoon samedi lañ koy génnee so moytuwul mën nañ ko génnee bu match bi commencé à 17 heures xam 18 heures wala 16 heures en plein match ñu publier une liste daw làqatu ji def li leen neex kon loolu xel projet bi bañ parce que projet bi privilège di ko puukaree di ko jëndee ay or di filmer di fotowu di wone ay ngénte ay takk di yore ay liaasi biee nga gis jigéen bu jël or daf ko takk ko ba mu fees dënn bi te mu wóor ni du ñaqam di ko wone ñu koy filmer loolu day jeex ay genre Farba Senghor Farba Ngom consort googu nga xam ni amuñu benn njàng jànguñu alxuraan jànguñu nasaraan ay vanipie lañu ay faux type lañu bu fekkonte ni si réew mu normal lañu nekk kër sax duñ ko am parce que jànguñu amuñu xam-xam amuñu métier kon ay ay ay nit ñu mel ni man la ñuy doon benn kër ngay wala ngay loué di taaba taaba koo xam ni dokeer nga woon nga doon yenu ay dambi mango tey ji xoolal li mu bóof ci alal xoolal ministre yi li ñu buuf ci alal xoolal directeur yi Macky Sall la tànn xoolal famille Macky Sall xoolal fami Mariam Faye Sall xoolal doomu Idrissa Seck xoolal doomu Khalifa sal alal di ñu buuf tey ji wóor la ni seen bàyyi liggéeyu ko kër yi ñu am suuf si ñu am àll bi yëpp dagg nañ ko ñoom ñoo ko moom ay ma jambal jaañ et j'en fu Je ko doon lim fi tey ñoo xam ne si alalu réew mi tey jii la ñuy dagg def ko seen moomeel Dakar bi yëpp immeuble yëpp nañ ko les juges noonu ñu ànd ak ñoom noonu woykat yi noonu yi ànd ak ñoom noonu yore oto ay huit huit la loolu dafa war a jeex te dina jeex incha allahu rabbi on veille au grain